dafa bàyyi ko woon Sëriñ Tuubaa ñëw si Cheikh Ibrahima Fall Lamp euh, mu mel ne takkusaanu tey jii nag euh, njabootu Sëriñ Mortalla waaye njabootu Sëriñ Aliou Fall Mboor it ñu ngi door a si léegi waaye ku xool ñii si bunt bi dafay mel ne njabootu Sëriñ Abdou Sakkoor ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy agsi noonu waaye ñu bàyyi xel nag ne jëwriñ Cheikh Ibrahima Fall di Sëriñ mu Fall mu Sëriñ Mourou Fall euh, dugg si na sànq ak njabootu Cheikh Mourou Moustapha Fall gi ak mbooleem seex yi toppoon Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne ginnaaw ku fi toogal Cheikh Ibrahima rek moo leen yilif mu mel ne daal si Baye Cheikh Ndaw lay lan lañ feggoon ak Sëriñ Mourou Diaw xam euh, suñ mbay jaw nga xam ne dañoo bokk si magi si teel bi yi nga xam si ni tey Cheikh Ibra Fall ki leen ñor bàyyi Cheikh takkusaani tey jii ak takkusaan yoon Mbàkke Kajoor bay Cheikh Ibra joxe boppam waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Ibrahima Jaw jërëjëf waa Lamp Fall waa Kawsara info macha dëgg yàlla seen liggéey rafet na na da nga ñaan ci kàttanu Cheikh Ibra Fall mu yëkkati leen waa sëñ Ibrahima comme niñ ko daan waxee waxtu nekk rek mu mel ni eh, ndogu yi waxtu woo ko gisee nga gis pënd bi di jóg da xam ne Cheikh Ibrahima Fall amul morom eh, Sëñ Tuubaa nag dafa seere woon ca moom waxtu wu nekk dana woon doom Ibrahima Fall kat dama rëcc sànni naa ko foo xam ne su fa xaawee koon ba ëllëg yomal xiyaam doom du laal eh, si Sëñ Tuubaa it nee woon naa doom Cheikh Ibrahima Fall xanaa xamu leen ne damaa teg fa ma yàlla teg moo tax may fal di wax ci samay wax ne koo booleel photo ku dul Sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima rek Sëñ Ibrahima daañu la kii mooy kan kon kenn ki nga xam ne kenn loon na ko Sëñ Tuubaa waaye liggéeyal ko maam Cheikh nag damay wax ne waxtu wu nekk mbindum Sëñ Tuubaa Cheikh Ibra Fall da koy firi waq di hawaa i jël lazina daamu fii xidmati wa hablahu maaraamu firi ga nag da ngay dem ca Gébu eh, Fall nga jàll tut dem daas dem naa fa sëñ Kamal Fall moo nekk jamono ji ca daara ja Cheikh Ibra Fall dafaa ñëw jëwriñ ji ñuy wax Baye Daw da bax daas moo jiite woon daaray daas ja boo demee daara ja dañ lay won daara ja ak dégg ba ab dégg bu jàkkaarloog daara ja nee na keroog maam Cheikh daa ñëw taxaw ca buntu ba daa ñaar doom woo leen ma daaw dëggay bax daas nee na ñu ne ko ah, ah, di taxaw ci buntu bi mu ne ah doom seen daar yi ji doom bëggutuma yokk Cheikh Ibra ko wax te ku dul Cheikh xam ne suñ tubaa da koo plafonné na bëggut te yokk nee na mu ah, daaw dëggay bax woo ko mu ne ah doom daaw dëggay fu ngeen naane nee na ñu ne ko ci déeg bi doom daaw dëggay fu ngeen sangoo ñu ne ko ci déeg bi daaw dëgg fu ngeen ni fóote li ngeen ni eh, li ngeen ni jële li ngeen ni maanaam fóote sagari yàlla yi ñu ne ko faal ci dégg bi léegi nag sagari yàlla yi déglul ndax wax dafa garaaw te wax ji day dem Cheikh Ibra Fall nee na gannaaw da ngay dégg ñu ne Cheikh Ibra Fall nee na doomi yàlla ñu ne waxi jaahil maam Cheikh nee na doom képp kuy ñàkkal yàlla ci doomi yàlla ngay nga bokk kon Baye Fall yi ci doomi yàlla yi lañ bokk ndax yàlla képp lañ ñàkkal nee na maam Cheikh daañ daa ah, doom ëllëg yomal xiyaam da ngeen gis doom te doom kenn xamul lan ma ko tax a texe waaye nag doom ci seen déeg bii ngeen ni liggéeyal yàlla doom di ci sangu di di ci naan doom ci la romb rek naan ci wala ak jur romb ci naan ci jur googu dem ci dëkk nee na ñu corcong jur wa mu lekk ndawal ku ko def sax texe kon waq dexe waaye jël lazina daamu fi xidmati wahab lahu maaraamu mi ngi nii inna allazina saaraxu li xidmati yi falaw mu diyaaru wasal janna Cheikh Ibra Fall damay wax ne aljana Baye Fall yi kuñ fa dëgg ne leen massa gannaaw gaa yi nag dañoo soxore waa si kër Cheikh Ibra Fall aljana te nañ bàyyi xel suñu Ibrahima. Cheikh Ibrahima Fall dana woon suñ Tuubaa ba may jaayanteeg yow àjjana taxut. Mm-hmm. ragal sawara yi taxut sa jëmm ji laa bëgg te fépp koo nekk ma fekk la fa. loolu nag moo dal waa kër Cheikh Ibrahima Fall gis nga leen. fii ne ku jug da ne waa kër Cheikh Ibrahima Fall sawara lañ jëm. waaye ñoom day lijjantiwuñ sawara lijjantiwul àjjana kenn képp lañ bëgg mooy suñ Tuubaa te sawara soo xam ne nag topp Sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibra Fall moo la ca dugal moo gën foofu àjjana joo xamante ni Sëñ Tuubaa dugal la fa wala maam Cheikh Ibra dugal la fa sant nañ leen gërëm nañ leen di ñaan sa borom yokku doole maam Cheikh Ibra Fall damaa den ak jàmbaar nag sëñ Baye Diaw Baye Fall wax naa ko sànq jàmbaar la taalibi maam Cheikh Moudou Fatma Fall la jëfkat la it xam naa dañ koy jox rek mu leeral bu ko defee ngeen ndeysaan jërëjëf jërëjëf mbokki taalibe yi ñu siyaare baax nag général Omar Seck waaye sëñ Mamour Ndaw Baye Fall borom Jazbul Murid noo ngi koy siyaare baax waaye nag Baye Seex ba la ñuy jox sëñ Mbay mhm. dañoo amoon jàmbaar joo xam ni mhm. daaw da doon ànd ñu liggéey bi mu sëñ Basiru Jaxate waaw waaw doonoon artiste comédien waaye nag gëmoon Seex Ibra te wóolu woon ko tey jii nag Baye Seex lan la si war a mën a ñaanalaat waaw xanaa xanaa ñëpp gën koo dolliwaat ñaan te nag ñu rafet ci moom njort ndax Seex Ibra Fall nee na doom ku dox juróom-ñaari jéego tama tax ñu jégal sa juróom-ñaari maam te bas jaxate kër euh, paalin la daan doxe ba fii na nga xam ne kon moom rafet nañ njort ci moom Sewra Fall nag nee woon naa doom sama taalibe man ak sëñ Bamba ku ci xëy faatu àjjana ngay yendu ci ku ci gontu faatu àjjana ngay fanaani ji kon yàlla nañu sa borom tax ca leeram ci doolay murit bu mag ba maam Cheikh Ibrahima Fall la jërëjëf mel ne déglu nga léegi kaddu yu Baye Cheikh yi looy saf si kaddu yu Baye Cheikh waaw jërëjëf jërë jërë ngeen jëfati jërë ngeen jëfati waa Kawsara TV di sant baax Baye waa Lam Fall leeral ñu ngi leen sant baax li bàyyi Seex wax doole sëg barki Seera Fall ndax euh, ñun Seex la dong lañ am moom lañ gëm moom lañu liggéey ba faatu waaw ku ñaan ñàkk boo jëndee am Seex la joojee ci lan nekk di sant baax sëñ Omar Seck général ak sëñ Mamour Lo jàmbaari maam Seex Raay Fall yooyu nga xam ne alal maam Seex Raay Fall ñu ngi koy doxal bu wér ku dem kër sëñ am na moonu mel ne gis seen jëf ku déglu te gis seen jëf kon ñun ñu ngi ci seen ginnaaw ku dem kër jëm gis seen jëf yoonu Baye Fall ñoom Cheikh Ibra la ñu liggéeyal tuddee mm-hmm. seen bopp alal maam Cheikh Ibrahima Fall ku mm-hmm. ñaan ñàkk boo jëndee ami Cheikh Ibra jooju ñun ña ca biir mm-hmm. waaw di sant baax Baye Cheikh Ndaw baax ci leeral gi wax di sant euh, suñu jëwriñ ji nga xam ne sëñ Modou Giseen ñoom ñëpp ñu ngi leen jàmbaar yi sëñ Abdourahmane Fall Tilala ji nga xam ne moom jàmbaar la wax dëgg yàlla ñu ngi am mbégte lool sëñ Touba lu mu bëgg seex Ibra Fall na ko def loolu lu lu mën a nekk la sëñ Touba lu mu bëgg seex Ibra Fall na ko def waaw bismillah bismillah sëñ Tuubaa lu mu bëgg Cheikh Ibrahima dina ko def lu waral loolu mooy sëñ Muntaxa yàlla fi yàgg daan wër sëñ am Moodu mel la chaque jour bis bu yàlla sàkk dina def ñaari camion benn mu yóbbu ko Touba benn mu yóbbu ko ëllëg ñaareem benn mu indi ko fii ci ndigalu sëñ Muntaxa Basiir di ñaan mu yàgg fi daan wër di ñaan mbokki taalibe yëpp Baye Fall nag yombut ndax fu ndol Baye Cheikh ko léegi boo nee Baye Fall nga ñu lay yéene sawara waaye nag Cheikh Ibrahima waxoon na leen de ndeysaan Cheikh Ibrahima nee na lan ñàkk ñukki joxe waaw ñàkk ñukki joxe mooy liggéey bi waaw Baye Fall luy wax jëf la kon yàlla nañ jëf yi seex jëf jëf jooju yàlla nañ ci bokk yalla ci and barke mam seray fall jërëjëf seigne touba est ce seigne touba jaram man seray fall ndaysan jërëjëf mu melne euh, seigne modou mi euh, seigne modou mi jambar la jambar seigne abdourahmane fall ci la la jambar yi euh, jambar fi dañu wara fek barke demul la jënd nak wo baax jébal ko seigne abdou fall ndaysan seigne modou gisé alali mam cheikh alali mam cheikh xamé na ko baax yalla na mu jël ka seigne modou hmm. ñi ngi ci tay li nga xamné ni ndigal lo xam ci ni cheikh ko fi bayoon hmm. ta def nako ab dir hmm. bi seigne modou ba doomi Cheikh Ibrahima jeex sët ba tey jii kenn ku si nekk tey te ba def benn kër la woon tey xoolal buntu kër Cheikh Ibrahima Fall yi ak sa takkusaan ak ñi nga xam ne ñi ngi royaat Cheikh Ibrahima si ji takkusaan yi nga xam ne ñoo ngi ko def fii si résidence Khadim Rasoul ok baax julli ci yonent bu tedd bi di jaajëfal Serigne Touba Khadim Rasoul di kennal maam Serigne Ibrahima Fall jàmbar ji di ñaanal Serigne Abdourahmane Fall Tilala jàmbar ji ñu si di sant bu baax te ñaanal Serigne am ni moonu mel ne mu liggéey bi moom daanaka maam Serigne Fall bi ñu ko defee ñi ne 1915 ñi ne 16 ba jëm yàlla tey jii ñu toll nga xam ne buntu yëpp ñu ngi koy taxawu nga xam te ne buntu kër bu ci nekk bu ko indi woon day doy sëkk waaye ñu booloo ñëpp nasu ci ki nga xam te moo fi Serigne Fall mu sëñ am di nga xam te moom jëf ji fa mu ko xam ne fa la ko sëñ Serigne ba woon daf ko yóbbu fi nga daanaka ñëpp teg nañ seen bët nga xam ne dañuy wax ne daanaka fi toll si ñami Tuubaa lañ toll nga xam te ne yëf yi fi mu ko jox sëñ te sëñ Amdi foofu la ne muy li nga xam ne moom la ñuy nekkee takkusaan gu jot di ko indi si kër sëñ Tuubaa waaw kay mu mel ne euh, alalu maam Cheikh Ibra moom ku ne gis na seenub liggéey waaye dafay mel ne kenn ku si nekk seen am na leneen loo xam ne yaa ngi koy jaayante waat si biir kër gi lu bokkut la war a dem si alal maam Cheikh Ibra waaw waaye alal ji moom dama ciy taxaw ndax alal yi maam Cheikh moom ku nekke ci bokk ku ci bokk rek yaa ci génn sa bopp kon nag ku ci jëful it yaa ci te yaa yaa wax lu tax waaye ne wax na cee tàbbal sam ñaq ndax sëñ am ni ne kii di général Omar Seck di jëwriñ lu agsi si moom agsi na ci maam Serigne Ba ndax ku xool mbaar mais gis kër gay sa xam ne moom xaarul kenn li ko sëñ am di digal ma nga ca ñu ci nekk nag di ko solle ñu ngi leen ciy soññaat te xam ne liggéey bi day soog a tàmbali juróom fukki nag yi ñu tàmbalee tàmbalee na ko ndi xaaraat yeneen juróom fukki nag yi ci kumte yi nga xamante ne moom la ñu song war ko daan te sëñ am ne nag bëggam gi moom faaw mu am faaw rek mu am Seydina Omar Seck ko fi tey fi toll mu ngi ci nag yi yitteem yëpp mooy nag yi te fexe ba li sëñ am di bëgg mu mottali ko ñeen ñi nga xam te ne dañoo am yeneen yitte war koo dox ci sëriñ bi muy seen yitte bopp nga xam te ne seen jëf yi dañ koy jooylaat sëñ bi ñun tam foofu ñoo nga fa waaye du tee alal ji dañ ci dugal suñu loxo ba ñu xam ne dugal nañ suñu loxo waaw kay waaw ah, na jërëjëf mbokki taalibe yi mu ne an eh, ñu ngi àndoon ak Baye Cheikh ak borom abor eh, nga xam ne dañoo bokk ci alali maam Cheikh Ibra eh, ñu ngi wàcce kàddu yi foofu nag di topp Baye Ngounda Fall mu suñ Fallu Fall mu suñ Sakkoor ngir mu indi ak

jébul woon ci sëriñ bi wala sëriñ bi gisee loolu sëriñ maanaam jàng waa sëñ Abdoy lay siar bu baax di siyaar mboolem waa Lamp Fall leeral Touba yëpp rek di am mbégte bu baax baax ci kàddu gi nga nga ak loolu nga ñu laaj muy ci pas-pas bi nga xamante ci la maam Cheikh Ibrahima Fall nekkoon ca bis bi nga xamante ci ñeent fan ñu bari ci taarix bokk na ci mooy gis bi mu gisee ak sangam bu tedd ba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul am na ñu wax keroog ci la yeesalaat pas ñun nag ñu ciy gën a amaat yëg-yëg day da ci gën a amaat tawféex joo xamante ni ñi ngi ciy ànd ak mboolem mbokki taalibe yi di liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall ci ndigal li nga xamante ni daa baawoon ci sangam bu baax ba Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba mu santoon ko ko ak mboolem njaboot gi mu doon ko doxal ba taawam bu baax dem ba yegg si tey ci njabootam gi sell gi yëpp ñu ciy amaat tawféex a baax a baax tey di ci comme niñ ko jé amé saa su rek ndax bis bu set moom liñ ciy am moy dañuy gëna bëgg lañ koy gënd def di ci gënd di am yëg-yëg. wa ñaar fukki fan yi moom ci la dimbali mouride yëpp waye ñeenti fan ci wéru koor ci la gëssante ak sangam ba waaye ci ñaar fukki fan yi nag ci la yéssa pass pass dimbali jaam ñëpp nak wa lool mom yaatu na mo xamni ñaar fukki fane yoy ci la bo doom ju baaju ju bu baaw sëni ci afal xadigéey di magal fofu ci kawla ñi ci siyaare bu baax baax Serigne Fall mu ci Cheikh Fall Khadiga ak mbolam jabor gi yëpp rek ñu Basirou nga ci Cheikh Fall te buntam ci keur Cheikh yoro don Serigne Mor la Fall nga xamanteni ni bu weeru musaane feñ rek day bàyyi ay yitam yépp tej buntu keuram buub ak njabotam ñu and ak ñun liggéey bi daan ci am rôle bu ba nga mag bo xam ne daan ko ci daan nako ci suyee ndax da bokkon ci ñi nga xam suñu borom daf leen cëralee ñu yëngu ci walum média ak di reetaanloo nit ñi waye lu ci ëppoon tamit daan na woné pass passam ak yéenam gi nga xamanteni mom la am ci Cheikh Ibra ak fi nga xamanteni fofu la fété ci yoon wi ñu ko ci fatlikou bu baaxa a baax di ci ñaanal ci doole Cheikh Ibra lepp lu mu ko mësa liggéey yalla na gis fofu fay aajoom ci barkeem maam Cheikh Ibra

pas-pas bu am solo dañu amuñu a mën a gën a waajare ba mën a a loolu moom ñun ndaw ñi nga xamante ni dañoo amuk bëgg ci maam Cheikh Ibrahima Fall di ko yëg saa su nekk kenn ku nekk ci ñun am na koo xamante ni gis na ko def ko muy royukaayam def ko muy buntam ci Cheikh Ibrahima Fall te jàpp ne ñun ndaw ñi kenn ku nekk ka nga xool ba nga xamante moom nga def muy sa bunt ci Cheikh Ibrahima boo xoolee ci moom ca ci doo juum ndax ñi nga xam te ne ñoom la Cheikh Ibrahima Fall njaboote te teg leen ci yoon wi amu ci kenn koo xam ne tënkuwut ci ndigal mbaa muy dox lenn loo xam ne ci ay jaaxaan la kon ñi nga xam ne am nañu bëgg ci Cheikh Ibrahima Fall nañ jël bunt ci Cheikh Ibrahima def ko muy seen royukaay di xool ci ñoom lépp loo xam ne nekk nañ ñu nekk ca lépp loo xam ne sant nañ leen ku ñu def ko lu ñu leen tere ñu bàyyi ko ku ko ci def daal doo juum waaye ne nag bëgg ngaa jël sa ko ba pare ko wut waree yoon kon loolu moom nañ ko bàyyi xel bu baax a dane moom kat daa mel ne sëñ Touba daanaka koo xam ne suñu njabootam nga des lu mu gàtt gàtt mën na jiite waaw loolu moom Cheikh Ibrahima Fall waxoon ko nee na képp xam ne ci la bokk mu des fi te jiitu ci yoon wi nañ jàpp ne ku mën a jiite jamono la ndax Cheikh Ibrahima du jël ku matul mukk mu di ko jiital képp ku mu jiite rek dàmbat kon képp ku la yàlla booleel muy sa bunt ci Cheikh Ibrahima jëlal kooku nga def ko muy sa royukaay te xam ni lépp lu la teg lu Cheikh Ibra santaane rek ak luñu bàyyi ndax njabootu Cheikh moom luñ ndaw ndaw rek ci ndëga ndigal rek la ñu tënk kon loolu moom ñu gën cee bàyyi waat xel baax ca gën cee wagarlu bu baax a baax jërëjëf waay jërëjëf jërëjëf Serigne Bassirou Fall da war a jub di togg ji ay doom mm, asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ñu sant yàlla sunu borom julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba ak di sant maam Cheikh Ibrahima Fall noo ngi leen di nuyu ci turu suñu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk suñu kanam di suñuy sang muy ay taalibe ñuy liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall boole nu ci liggéey bi. li nga xam ne moom la ñu soññee bokk taalibe yi ñun ñëpp rek ñu àndandoo ci góor góorgóorlu ci ndénkaan yi nga xam ne maam Cheikh Ibrahima batale woon na ko ak njabootam. suñ boroom dogal ñu koy wéyal ba doom ya wéy ba mu des sët yi di suñu way jur yi fi na ñu ñaan yàlla suñu borom mu yàgg lool suñ kanam ñu ko yéene ànd ak ñoom te ànd ak ñoom ci jëfe ak bàyyi ay tere ànd ñoom ci lépp luy tax liggéeyu Seex Ibra Faal bi gën a yaatu te gën a sell mu cay góorgóorlu kemt laay suñu kàttan ci guddi ak bëccëg yi waaye nag di ko doxe ak a jëfe ci ab yar ak i teggin ak ub li nga xam ne moom la maam Cheikh Ibrahima Fall tegoon te bañ a wàcc loolu kon noonu ñépp ñëpp góor góorgóorlu liggéey bi tàmbali na bis ni ka tey day wéy ba keroog koor gi jeex kon képp koo xam ne ab taalibe nga te maam Cheikh Ibrahima sa bunt ci Serigne Touba sa warteef la ak kër goo mën a siyaare ci kër Cheikh Ibrahima loo jàpp nga bàyyi ko bu dee ku ne ci réew mi mu ñëw teew si bu dee ku newut ci réew mi mu fexe ba lay tax ndogu yi di man a sotti kenn bañ ko càmmal loolu daal mooy baati soññe yi nga xam ne yaakaaruma sax ne xanaa ak fàttali la waaye kenn fàttiwu ko day def kuy wax moom mënoo ñàkk bañ wax waaye weeru koor moom bu ñëwee ku yaakaar Cheikh Ibrahima Fall ku nekk la ciy sëb cër ak sa wàll xam nga ko yàlla sama borom defal nu tawfeex ak taysiir ci doole Serigne Touba ak ci maam Cheikh Ibrahima ba nu mën a jàkku ndigal te koy jëf lu ñu ci jëfit ñu nangul nako té te dencal na ko foo xam ne du fa add mu ci wat imam Cheikh jërëjëf Fall Ndiaga mu melni gis nañ la nga fegg maam Ibrahima Fall mu suñ Cheikh Fall Mbor té mm-hmm. ndog yi ku ko xol xamné mm-hmm. da fay melni ndog yi njabotu soxna Fat Diop Sayar la mm-hmm. kon da fay bax ci image tay bo togué fi togal fi njabotu suñ mortal gi mom mais tok fe togay fa togay njabootu suñ yëlli Fall Mbor gi dama yaakaar ne loolu sëriñ bi warna ci lay wat bir mbokki taalibe yi ñi nga xam ndog yi da leen romb te xamuñu lan moy sababu and ñaari kan yi waaw euh, moom da nga naan njabootu Cheikh Ibra rek bu ko defee mu gën a yaatu njabootu Cheikh Ibra moo gën a yaatu ndogu yi 1930 la fi maam Cheikh Ibra Fall jóge sëñ Mortala togg na ko ba 50 mu doon xalifa Cheikh Ibra togg ko ba 54 muy ñaar fukki at ak ñeent sëñ Aliou faal Mboor jël ko 54 ba 78 di ñaar fukki at ak ñeent ñoom ñaari doomi Cheikh Ibra yooyu kenn ku nekk defu nga ko ñaar fukki at ak ñeent. muy ñeent fukki at ak juróom-ñett bi loolu amee bis bi sëñ Aliou Fall Mbaor wujjee boroomam ci weeru euh, rakki gàmm ban demee ba ci koor ga sëñ Abdou Assis wéyal ndogoy wéy juróom woowee di sëñ Mor Talla sëñ Cheikh Fall Mbaor wéyal loolaay wéy ba nekkee sii ndo bi sëñ Abdou Assis wujjee boroomam it sëñ Abdou moom itam wéyal ndogu ya kon mooy yenn yi kon day mel ni liggéey bi di fi maam Cheikh Ibra Fall bàyyi ko ak léegi dakkul ci genn këru Cheikh Ibra ñu koy def ndax ñi nga xam ne togguwuñ ay ndogu te seen wayjur Cheikh Ibra meññi leen it lu ëpp lu ñuy defi ndogu ña ngi koy dajale eh, di ko yët ki fi nekkal Cheikh Ibra mbaa sëñ Touba ñoom itam ànd ci liggéey boobu kon nag luy lenn la luy lenn nag des koo mënta def ñaar loolu moom mooy sababu ànd gi ñaan yàlla suñu borom mu sax dàkk rek ci barkib Serigne Touba ñu am seen. ba moom lay nuyu di la ziare di nuyu tey ziar itam mboolem mbokk yi ñuy déglu ak mboolem mbokk yi nga xam ne it noo ngi ñuy seetaan mu mel ne am nañ mbégte mu rëy tey fii ngeen nu fekk di ëttub sëñ Touba Xaadimu Rasuul li ci gën a neexit mooy jëfee ndigal lu mu digaloon maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ci 1912 bi nga xamee ne ñëw na njaareem. nga xamne ne ker mourid bu ne man lay jëf ak lamb ngir sàkk lu neex serigne bi ak lu mën amé yiwu adina ak alakhir waye nak ki bi tanal mom joxagnal ko bopam daf koy wor ne ni serigne bi bëgg ma nga ci lool té loolu moy tanki tay ji dañu wax ne bi serigne bi ñëwé njaareem ci la yónnee Thiès ci mam Cheikh ibrahim jox ko ab lettre wax ko ne ko damay am gan waye gan gogou bëgg na ñu térul mako gatandul mako ganel ganeelal ma te teralal mako ko te gunge ko biñu waxé lolu mag ñet ñu ci bari seen xel limu daj moy gannaaw sëriñ bi mom bëggul won ku dut sallallahu alayhi wa sallam kon ay sëtam muy surafa uñ ñoo foré ñew ngir ganes waye waaye Cheikh Biram mi nga xamné sëriñ bi du ku ñuy xam waye bu doon ku ñuy xam ñu ne xam nako ndax mo daan wax sëriñ tuba bu téna ma xam bi ma xam rabu teen wa namu tut wax ne sëriñ bi de gan gi mi wax mooy weeru koor téen ba mu yàgg mu dellusi si daan ne weer waa ngi ci ñaareelu asamaan kon tay weer wi du feeñ tey li seenu bu njëkk waaye du feeñ suba lay feeñ gannaaw suba mooy benn pan waaye sëñ Tuubaa defal na ma ci loo xam ne kenn mësu ko am ci wii weer ba ko sallallahu alayhi wa sallam wàccee ci ndigalal suñu borom daan weer wi kat ku ko woor ba mu jeex loo ci am ñu ne ko faal bu ko yàlla nangoo nga am weeru koor wu yàlla nangu mu naa ah, bu ko nanguwul nag mag ñu mu ne man de doom liggéey naa ci te nangul nañ ma ndax sëñ Bamba nee na maag ñi ma àndal di liggéey ci weer wi bis bu ne may nañu weeru yàlla nangu kon bu weer wi dee fanweer am nañ fanweeri weer bu dee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent am nañ ñaar fukki weer ak juróom-ñeent kon mu mel ne ba lislaam sosoog tey ku nu defal lu mel noonu ci weer wi wala nga tono woo ci tono bu mel nii amut ku du Ibrahima Fall loolu nag li ko indi mooy dafa jiite kuréel bu ñuy wax ahlul xidma te sëriñ bi wax ne waxiila in xadara yowmul baari wa duriba shiraatu fawqa naari wa kaabadal wara jawaawal xumma naana munaad naana munaadin ayna ahlul xidma mu mel ne kon loolu njabootu Cheikh Rafal ndax ku daan jàng alxuraan ba ak ci alif lam mim salikal kitab laa rayba fii hudan lil muttaqin allazina yuminuuna bil xaybi daf naan la tudd nga ma ba yaqimuuna salaata mu ne ñiy jëfandikoo ponk yaa ngi door a ñëw dañ tàbbi àjjana lu yàgg di leen fa nekk kon bu fekkee ne ndigal jóge na ci Serigne Touba. ci nag ci saatul wusfa ci jamonoy jafe-jafe. ndax booba ku nekk xam na ne réew mi gëndoowul. wata yi bëriwul. moyen transport bëriwul. waaye ci farlu Cheikh Ibrahima Fall ak la Serigne bi ne woon bu ma joxoñoon wax dara. joxoñ ci sàkket wii. jann ku ne ci bunt bi ngay jaar dem doxi la man a sant. waaye bu doon Ibrahima Fall fi sama baaraam jëm rek. falay tay bopam ngir lol sama ndigal lool da waral ba ndigal la roté ak jamonoy jafe-jafe mu ak ca wayam ci intelligence sama xélam ci yoy jamono mu signé contrat ak semaine de fer ci saxar gu ñuy wax régulier daan ko jëlé ci es bis bu né di indi njaareem di ko sëriñ bi nga xamné wax nañ ni bu sëriñ bi masaan dégg kaddu bi day jog taxaw kaddu sikar gi ñu wacce ci saxar ga yenu dab yi sikar day jog taxaw leen ba nu dal mu doora dem kon liggey la bo xamne moko santone Cheikh ibrahim moko beugalon bopam liggey bobu nak tay dafa melni bu doon ben yobbu nañ ko ci jooni ndax buntu kërub Cheikh rafal Fall bu nekk noonu lañ cey dox lolu moy li ci eutup seigne ali Fall Mbawar tay ji di doxé lolu nak ni ñu ànd ni ñew ak njabootuk seigne mortal modi seigne di sëñ Aliou bi fi sëñ Mor nekkee nekkal fi Cheikh ibrahim Fall da andon ak mom ci liggey bam fi joggé njabootuk Cheikh mortal Talla and ko ak seigne Aliou di liggey ba tay seigne Cheikh ak seigne Abdoulahi Fall moom Cheikh Mortalla nekk fi ñu ànd liggéey boobu di ko rafetal. mu mel ne liggéey bi fu mu tolloon yóbbu nañ ko ci dayo boo xam ne. ëpp na téeméeri yoon ca nañ ko doon séentoo ak nañ ko bëggee woon. kon ñun sunu mbég mooy. ndeke li nu sëriñ bi digal. yàlla dimbali nu ba nu bokk ci ña koy jëfe waaye yàlla dimbali ban na yenn ndog yooyu tey yenni ko ci ëttub sëñ Tuubaa mu leer na li sëriñ bi bëggoon def nañ ko loolu rek mooy sunu ndam ndax suñu laxat dafa daan wax ne mbañum Baay Faal mooy ndigal jóge kër sëñ Tuubaa te jëfewu mhm. mbañum kër sëñ Tuubaa mooy war a digle te digle mhm. kon ndog ba nga xam ne ki war a digle digle na te ñu war a jëfe jëfe na moom seex Ibra Fall la ngi suñu wet nga ne waxtu wu ne ñoo njabootul sëñ moo ak sëñ Aliou ñooy ànd liggéey bii di ko jotal ko sëñ Touba ki toogeb jotaayam ne yi di sunu rakk di sunu xarit sunu ginnaaw ñu tuddee ko sëñ Aliou Fall Mbawar muy sëñ Aliou Fall am moo Mor Talla Fall jërë ngeen